na ñoŋal prévention bi ci wàllum tàngaay bi ndax ngir mën a anticiper ci risque yi nga xam ne dañ koy nemmeeku muy tukkee ci tàngaay bi jëm ci wérgu yaram doomu aadama yi loole nag mooy jeexitalu ndaje bi nga xam ne ñii di waa ANACIM amal nañ ko agence nationale bu météorologie bu Sénégal saytu ne tàngaay bi mu ngi gën di yokku di def ay victimes ci àddina bi te loole nag faw ñu wut ci ay matuwaay. le ci boppam gouverneur moo ñu woo. nañu bi ñuy présider CRD woo nañ ko téléphone waa sapeur pompier ne ko am na kat ñeenti xale yoo xam ne ay dañ doon jàng yu daanu ngir tàngaay bu metti mooy wan ni donc mbir yi mu ngi fii donc moom moo taxoon ñu xool nu ñu mën a liggéey ak suñu partenaires yi pour xool nan la ñu mën a jëmmal benn système boo xam ni bis bu ñu xalaatee ni am na ay vague de chaleur yu war a ñëw ñu mën ko teel a wax population yi pour nit ñi mën a préparer wu. ngir mën a matal loolee nag ñii di waa ANACIM sukkandiku ci xam ak expertise bi nga xam ne ñii di waa NOAA ci seen bureau bu Afrique. mag yi ak xale yi. je crois que tàngoor bi ñoo ñooñu la gën a sonn te tamit yeneen feebar yi surtout feebar xol mun na ko aggraver. tàngaay bi nag ñi muy gën a laal doon ay nit ñi nga xam ne seen wér yaram dafa xaw a sutanti. Euh, dañuy gëstu dañuy développer ay modèles euh, donc modèles yooyu nag ci la ñuy former <clears throat> moom la ñuy indil ANACIM Euh, jox leen ko ba nga xamante ne ñoom buñ ci yokkee données yi nga xam ne mën a am à l'échelle mën a améliorer prévision yooyu pour effectivement ñu mën a euh, wax askan bi lan mooy xew ba ñu mën a jël seen i maytu euh, matukaay. suñu sukkandikoo ci rapport bu mujj bi nga xam ne ñii di waa organisation mondiale de la météorologie génne weeru octobre 2023 bi ñu weesu moom moo gën a tàng ci taarix ndax yegg na ci moyenne bu toll ci 15 virgule 38 Celsius ci tàngaayu suuf si tàngaay boobu ko gën di yokk mooy changement climatique yi nga xam ne ñu ngi wane ne suñ ci jëlul ay matuwaay mën na indi ay jéyo yu jéggi dayoo.